téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert. ginnaaw ba sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndokkeel leen ci weer wu tedd wi nga xam ne moom lañuy dugg mu weeru gàmmu weer woo xam ne ki ci feeñ suñ borom moo ko def ci ci coobaray boppam mu doon ki gën ci yonant yi doon ki gën ci doomu aadama yi. te loola ceeb coobaree suñ boroom la loola nag tax na buñ ci egsee ñu kooku nga xam ne nag moom la yàlla tànn def ko muy ki gën ci doomu aadama yi ci lim bind lépp mu feeñ ci weeru tedd wii ñun yi nga xam ne ñun la yàlla jagleel ñu nekk aw xeetam bu buñ egsee ci weeru tedd wii war naa ñoo am loo xam ne war nañ koo delloosiwaat ci suñ bopp xoolaat ndax moom moomee nga xam ne moom la yàlla tànn def ko muy gën ci doomu aadama yi ci ci lim bind moo mu de moo moo ci gën kon kooku nga xam ne moom lañu yàlla jagleel bu ñu egsee ci weeram war nañoo xoolaat suñu bopp ndax lam bëggoon ci ñun ak lim li nga xam ne moom la indi woon ci ñun ndax loola ñun ña nga ca ba tey wala ndax teggi nañ ko wala ndax am na loo xam ne manqué nañ ko ca bu ko defee bu fekkee na ña ngi ca yoon wa ñu gën a sant suñu boroom gën a góor góorlu ngir xam ne cant ngir xam ne lu baax day boo bëggee mu gën a yokk bëgg mu gën a dëgër ci yow mooy da ngay sant suñ borom bu ñu jokkee ne nekkuñ ca loola itam yàlla def na am am na xéewal gu mu nu jox muy xéewalu jégglu ak tuub delluwaat ci moom ndax loolu ba tey itam ndimbal la ci lépp loo xam ne def nañ ko ci loo xam ne bokkut ak li ñu war a nekk wala loo xam ne def nañ ko te bokkut te bokkut ci ñu war a def kon nag bu ñu egsee ci weeru tedd wii te weer woo xam ne suñ borom jox na xee xeetu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xéewal yu bari yoo xam ne ngir jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax mu defal leen ko xéewal yooyee bokk na ca suñ xam nañ ne ñi jiitu woon ci xeet yi nga xam ne ñoom la suñ borom daa yónni ay yonant am nañ nañu ay bàkkaar yoo xam ne suñ ko masaa def suñ boroom da leen di mbugal ci mbugal yi tar ñii dafa wëlbati suuf ci seen kaw ñii da leen a labal loola lépp nag mu xamal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow sa xeet bi nga xam ne moo aj ñoo nekk ak yow loolu nga xam ne mooy mbugal yooyee du ma ko def ci ñoom mbukk li feeg yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa dund ci seen biir boo dudd ci seen biir tam am na xéewal gu ma leen joxaat gooy boo xam ne li feeg ñu ñu ngi koy def mbugal yooyee du dal ci seen kaw boo nekkee ci ñoom mbugal yooyee du dal ci seen kaw li feeg ñu ngi may jéggalu itam mbugal yooyee nga xam ne moom laa defoon ci xeet yi nga xam ne moom la jiitu woon loola du ma ko deg ci du ko teg ci seen kaw loolu lépp du ñu woon kon xéewal goo xam ne suñ borom defal na ko xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay xéewal yoo xam ne bu wute naag ñi nga xam ne ñoonu jiitu woon ci ay yonante ak xeet ya nga xam ne ñoom lañ leen ñoom leen leen yónni woon ndax xam ne buñ de ndax xam nañ ne buñ dee xool ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bii nga xam ne moom la yonent suñ borom yónni ci ñoom Seydina Muhammad te xamal nañu li feeg yaa ngi ci xamal ko ne ko li feeg yaa ngi ci ñoom mbugal yi nga xam ne moom laa doon teg ci xeet xeet yooyee du ko teg ci ñoom li feeg ñu ngi jégalu itam mbugal yooyee ma daa teg ci xeet yooyee du ko teg ci ñoom te xam nañ ne jamono ji yaakaar naa buñ xeetee buñ seetloo danañ gis ne yaakaar naa bakkaar yu bari yooyu nga xam ne moo taxoon ñu bëggal ñooñee day danañ ko gis ci xeetu Seydina Muhammad waaye nag xéewal googu nga leen suñ borom defal tax na mbugal yooyee nga xam ne moo daa àgg ci moo daa àgg ci xeet yooyee moom du àgg ci du àgg ci ñoom la bokk na itam ci xéewal yi nga xam ne xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñ borom defal na ko ko mooy suñ borom moo wax ci wax wu ju wér joo xam ne da ko dëgëral ngir xamle ne xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam li feeg ñu ngi jàpp ci seen pas-pas ñu ko war a jàppee di góorgóorlu ñu war a góorgóorlu nañu xam ne nañu yëg ne waxtu wu nekk maa ngi ci seen wat buñ te dara buñ jaaxle ci dara buñ jàq ci dara te loolu yaakaar naa ne loolu dañuy danañ danañ mën nañ koo dund wala mën nañ ko wone rek ci xew-xew bi weesu muy xew xew-xewu màggal bi ndax xam nañ ne li ko waraloon mooy ka nga xam ne moom moo moo moo waral bis bi moom xëy jàkkaarloo na ak ay noon yu bari ci ay pexe yu bari waaye nag ngir gëmam yàllaam ak doyloo yaram ak yaakaarug yàllaam tax na ñu xeet maanaam xeet yu bari yooyee wala ngànnaay yu bari yooyee ak mbooloo mu bari moomay mënuñ ci moom dara kon loolu moo ñuy won ne li ñuy war a li ñuy mën a dimbali te mën a tax loo xam ne moom mooy tax ndigalu ndimbalu suñu borom loolu di ñëw ci ñun mooy faw ñu gën a lu ci gën a jàpp suñuy pas-pas gën a góorgóorlu ci di jëf li nga xam ne moom la suñ borom bëgg ci ñun di gën a góorgóorlu ci doyloo suñ borom ak gën koo yaakaar loolu rek mooy tax li nga xam ne moom la suñ borom dëële ñu mën cee jot ci jotindu kawe suñ jot ndax xam nañ ne ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa am na xeex bu xewoon ñu di ko wax xasawtu oy ne ni booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ca ña doon xeex ca xeex boobee waaye xam nañ ne dafa am lu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon waaye poñatu àdduna tax ñu gisee neneen ñu doxe neneen ñu bokkute ak nañ war a doxe ba tax loolee andi seeni noon def ci ñoom loo xam ne loolee wane na ne te booba jàppoon nañ ne seeni noonu waratuñoo mën ci ñoom dara ndax ba bañu bañ jëkkee jàkkaarloog ñoom lim bu néew lañu woon am seen ngànnaay itam ngànnaay yi néew la waaye nag tey am nañ lim bu bari am ngànnaay yu bari di jàkkaarloog seeni noon te tey jii bi nga xamee ne jéggi nañ li nga xam ne moom la leen yonent bi sallallahu alayhi waxoon ngir te la leen ko tax a jéggi loolu lépp mooy poñatum àdduna képp loola tax na seeni noonu def nañ ci ñoom loo xam ne tax na àdduna li muy yaatu yaatu mujj na xat ci ñoom lool àdduna li muy li muy rëy rëy mujj na xat ci ñoom ndax gis nañu ne tey jii taxaw nañ ci seen kanam yi noonu seen noonu def ci ñoom loo xam ne bokkut li nga xam ne moom lañ yaakaaroon ne danañ ko mën a danañ ko mën a def ci ñoom loolu nag li ñuy won kon ne ngir ñu mën a des waxtu nekk ci ndimbalul suñ borom ngir ñu mën a des waxtu wu nekk ci jàppaleeg suñu borom faaw ñu doon ñoo xam ne dañuy góorgóorlu ci gën a dëgëral seen i pas-pas ci suñu borom gën a góorgóorlu ci gën a yaa gën a dëgëral seen yaakaar ci suñu borom gën a dëgër lu gër gën a dëgër dëgër dëgër lu itam ci topp ndigal yi nga xam ne moom la suñu borom digle fas yéenee sori li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la tere loolu li feek ñu ngi ci bu buñu buñ buñ tiit dara buñ yàq dara moo xam ci àdduna si la moo xam ci àllaaxira nga xam ne moom lañ jëm kon nag suñ borom mi nga xam ne moo mën a téye ay pas-pas moo mën a tax itam ba duñ jaar fu ñu wër sa mën a jaar yàlla nañu dimbaleel boppam taxawul nu boppam ba li nga xam ne ba waxtu nekk suñ ngëm di gën a dëgër ci suñu borom waxtu nekk itam suñuy pas gën a dëgër ci moom waxtu nekk itam suñuy yaakaar gën a dëgër ci moom waxtu nekk itam gën a doy doyloo gi ñuy doyloo suñu borom gën a dëgër ndax loolu rek mooy tax liñ bëgg ñu mën koo am ni nga xam ne ni lañ ko yaakaaree loolu mooy tax itam ñu mën a taxaw ni ñu war a taxawee loolu mooy mën a taxaw itam mooy mën a tax itam dara lu ñuy tiitloo wala lañ jàqaloo mën a nekk du mën a nekk suñ kanam loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu nag ñu talluwaat ñu tàllalaat suñuy loxo ci weeru tedd yi nga xam ne moom lañu nekk te weer ndax weer la woo xam ne warees naa mën a am yaakaar ci weer wi ndax lu tax ñu war a am ci yaakaar ci moom mooy ki ci feeñ yàlla moo waxal boppam ne ko yow li la tax li tax ma yónni la da ngaa nekk ngir nga nekk yërmande doomu aadama yi kon nag ka nga xam ne suñ borom a ko yónni te ba mu ko yónni da koo def ne koo dama la laa def ngir nga nekk yërmande doomu aadama yi kon kenn ku ne xam na ne weer wa mu feeñee ku ne war na caa mën a yaakaar yërmande suñ borom ku ne mën na caa yaakaar itam loo ñaan suñ borom te mu doon loo xam ne lu lu jaadu la lu war a nekk la suñ borom mën na koo defal ñoo ngi ñaan na kon suñ borom mu gën a dëgëral suñu bas-bas gën a dëgëral suñu yaakaar suñu borom gën a dëgëral suñu ngëm ci moom gën a gën a dëgëral itam suñ pas-pas ci moom ndax loolu mooy li nga xam ne moo nu mën a jariñ gën noo dimbali itam ba lépp loo ba suñ tànk bii nga xam ne léeg-léeg mu dugg war a dugg mu téyal nu ko moom suñ borom mi nga xam ne mooy borom kattan ba du dugg fu mu war a du dox fu mu war dox du def lu mu war a def loolu suñ borom mën na ko jàpp na yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu itam ñi ñaan suñ borom lii nga xam ne mooy feeñ ci mooy feeñ ci xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay balaa yoo xam ne wuute na lool ak la daa xeet feeñ ci xeet ya nga xam ne ñoo jiitu woon xeetu Seydina Muhammad ñi ngi ñaan suñu borom moomu nga xam ne moonu tin ngir jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mbugal yooyee ak ak tëkk ak yooyee nga xam ne moo daa ci xeet yi xewut ci ñoom xewut ci ñun ñu ngi koy ñaan kon ci daraje weer wu tedd wi ak daraje kim ci feeñal ba li nga xam ne mooy feeñ ci ñun te mu doon loo xam ne li ñuy jaaxal la te moom suñ borom moo am kattanu mën koo dindi li moo am kattanu moo am sañ-sañu mën koo dindi moo am man-manam mën koo dimi dindi yàlla dindi loolee yàlla ñu gën a tin gën noo yërëm ci dara daraje sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu itam ñaan suñ borom ci weeru tedd wii Cheikh Mamadou Mountakha bi nga xam ne moom nekkal sañu tubaa te xam nañ ne dara du itteem lu dul lislaam ak doomi aadama yi yërmande yi doomu aadama yi la ju fees dell moom itam kon loolu kooku nga xam ne nag lislaam mooy itteem ak yërmande yi doomu aadama yi yàlla suñ borom gën a dëgëral gën koo kattanal ba lépp loo xam ne yéene na ko ci doomu aadama yi man man ko def da def ko na kawe njottam te ànd ko moom te daje ci ngërëm suñ borom li mu yéene ci diine lislaam itam suñ borom gën koo kattanal gën koo manal ba lépp loo xam ne yéene na ko mën koo def definu kawe njottam te daje ci te te ànd ko moom te daje ci ngërëmu suñ borom képp koo xam ne itam lislaam mooy sab tool ci nga yëg ci nga yëngu yàlla na suñ borom gën a dëgëral yàlla na suñ borom gën a jàppandal yàlla na suñ borom gën a taxaw ba li nga xam ne yéene nga ko